dama bëgg a dama bëgg waa ndànk rek sénégalais dinañ ko dégg li ma ndaw si laaj mooy. Ah, dafa am benn xale bu am euh, fukki at ak juróom buy laaj nan la mën a def ba comprendre sama démarche ci ci wàllu politique. da ngay doxale ni may doxalee ci wàllu politique ban cohérence maanaam est-ce que lu lu dëng la lu luub la walla lu jub la. lu jub la li tax mu jub. mooy fi ma ko wéer man dama juddu damay génn àddina xaw ma ñaata temps laa fii def ki ma jàpp ni moo ma fi indi daf ma wax lu leer daf ni ma xalaqal mawt wal xayaat li yabluwakum ayukum ahsanu amala bind naa dee bind dund ma ne ko waaw mais nga bind ñu ñuy dund pour dee amul sens mu ne ma sii am na sens lenn rek laay seet ci intervalle boobu bi ngeen di nekk ci berceau bi ba ba ngeen di dem ci bàmmeel bi kan ci yéen moo gën a xarañ ci jariñe kan ci yéen moo gën a xarañ ci jariñe moo tax almaktum doon firi araayta alladi yukadibu bi diin ne loo xam waxul ku weddi diine daf ne loo xam ci ku umpule njariñul jariñe toute ma vie je veux être au service de ma communauté de moi-même d'abord de ma famille femme enfant frère sœur etc de ma communauté si je suis à la station père je veux être le meilleur père du monde si je suis à la station Marie je veux être le meilleur mari du monde dont chaque femme rêve. Si je suis à la station mère d'une ville, je vais être le meilleur maire. Je l'ai été. Si je suis à la station Premier ministre, je vais être le meilleur Premier ministre. Je l'ai été. Si je suis à la station président, ben je vais être le meilleur président. Inch'Allah, si vous me faites confiance, je le serai. Voilà la cohérence de base. Donc, quelle est ma feuille de route? Ma feuille de route, mooy produire des bienfaits. léegi bien fait lan moo ci jiitu mooy dàq lor d'abord nit ki bañ a loru bañ a feebar bañ a accidenté bañ a gaañu et dàq lor n'est-ce pas dàq lor d'abord après nga ñoddi njariñ nit ki jariñ lekk ba suur naan ba màndi bu bëggee faju faju bu bëggee transporté wu transporté wu bu bëggee jàngal doomam jàngal doomam bu bëggee dem tool am yoon bu mu jaar. président nekkoo nekkoo di tontu sama question te temps baa ngi avancé moom li muy laajte mooy la logique bi nekk sa démarche au vu de actes yi ngay posé. mais logique bi euh, mooy nii par exemple. Euh, yow fii la wéeru dàq lor yor di njariñ waaw non sa sa démarche politique la wax sa démarche politique. Idrissa Seck sama démarche politique. mooy lan sama démarche politique Idrissa Seck daf jàng ba pare dem Price Waterhouse Coopers di liggéey pour am alal man sama liggéey mooy jënd ak jaay xam-xam xam-xam mooy marchandise mi gën ci àddina du périmé boo ko jaayee doo ko ñàkk. boo jaayee kaas bi da nga koy ñàkk boo jaayee xam-xam dese nga ko c'est le bien le plus précieux c'est pour ça que je le vends dix mille euros de leur mais président nee nga c'est-à-dire plusieurs salaires ministériels en une heure pardon bi ma demee foofu di liggéey Ablaye Wade 1988 mu woo ma dafa waroon dem élection comme sama xaritu cousin la Badara Niang ma dem bureau bind ñaari feuille yu papier ñaari idée ñaari phrase ne ko voilà ta campagne mu ne ma viens diriger ma campagne ma ñëw diriger campagne bi c'est comme ça que c'est parti mais pour moi c'était juste comme j'en avais convenu avec Price Waterhouse une parenthèse c'était de l'amusement presque c'était pas pour aller dem politique bi ma jógee ci loolu non dama damay tontu question bi wala ma bàyyi. dama bëggoon rek. yooyu euh, ñu kër ko tënk tuuti. parce que d'accord dama koy tënk. 1988 ngeen ma njëkk a xam ci politique. mais jiitu na loolu. Ablaye Wade maa ngi ko xam bi ma amee 15 ans muy ñëw suñu kër sam papa moo ko boole woon ak ba Niang 88 mu def ma directeur de campagne électorale à l'élection présidentielle. 93 mu dugg ci gouvernement bi ma bañ puisque entre temps bi ma baree ci campagne bi dama ko fa bàyyi dem Princeton James Baker ministre des finances des États-Unis moo a recommandé ma dem Princeton bi ma génnee Princeton ma créé ACG Afrique wax waa Price Waterhouse li ma leen di liggéeyal ngeen koy gagné dama koy liggéey def ko sama gafak ma gañe ñaari contrat appel d'offre international benn bu njëkk bi dañ koo négocier mooy bi ñuy defar Koweït bi guerre bi pare man maa dem ak sama benn professeur bu nekkoon Princeton bu ñuy wax David Chieu ki George Bush joxoon reconstruction Koweït ma ne ko waa Sénégal ñàkk nañu 93 jàmbaar ci xeex bi comme yéen mi ngeen ñàkke ay soldats donc war nañoo am ci économie reconstruction bi looloo indi euh, ouvrier yi ñu yóbbu Koweït te Ousmane Ngom doon leen yóbbu comme ministre du travail deuxièmement PL 480 maanaam ceeb bi nga xam ni Amérique daf koy may Sénégal man maa gagné appel d'offre international bi États-Unis li muy may Sénégal yépp ci ay tonu ceeb man la ko jox maa ko doon jaay ñoom Bocar Samba Dieng ñoom commerçant yu fi nekk yépp maa daaneel caisse de péréquation puisque dañ doon sàcc alalu réew mi 15 milliards de déficit ci bi ma defee audit bi ma ne loolu ma wax ko Colin ma ne ko lii xaj na ci sénégalais yi mën na defar ay salle de classe mën na defar lii ñu tas ko libéraliser ceeb bi riz parfumé bii ngay lekk ci foofu la jóge defal ndànk non defal ndànk xamul ndax ma waaw defal ndànk defal ndànk non defal ndànk yow tamit Alassane vraiment c'est important hmm. pour la cohérence léegi parcours bi noonu la 88 93 PL 480 Habib Thiam qui était premier ministre bu contrat dépassé milliard premier ministre moo ko doon approuvé mu ne du approuvé sama contrat te maa ko gagné appel d'offre international ACG Afrique américain yi ñoo wax Abdou Diouf ne ko ñu ngi may dégg seen ambassade ak ngi fii mën nañ ko vérifier ne ko PL 480 bii bu ko ACG liggéeyul ceeb du fi dugg Abdou Diouf moo tordre le bras à Habib mu soog a signé ma gagné contrat bi ma ne waaw man maa ngi dem pour liggéey sama liggéey wut sama alal mu lew ma doom benn waay toog ci benn fauteuil puisque dañ koo nommé par décret mu bëgg ma xañ loolu ma ne kon man maa ngi juum fii du sama place fële mu toog laay dem toog yi pour loolu bañ a amati Voilà mon engagement politique. Je suis donc revenu en politique avec l'objectif clair de battre le Parti socialiste et je l'ai fait en 2000. Non, attendez, attendez, je l'ai fait. Je l'ai fait, oui ou non? Oui, le temps. J'ai fait tomber 40 ans de socialisme dans ce pays. Presque seul. Avec puisque Wade, non. Wade s'était découragé et s'était réfugié à Versailles. de 98 à 2000. C'est moi qui suis allé le chercher. Très bien, très bien. La CA 2000, c'est moi qui l'ai organisée. Landing, Bachili, Dansoho, c'est moi qui suis les chercher en leur disant que si vous voulez encore politiquement, vous n'avez aucun que de choisir Wade comme boppam ci parce que ñu. non ci sénégalais yi. non attendez une la euh, Wade si bëgg ñu taxaw ci parce que ñu bëri ci sénégalais yi dañu gis ci say sorties yi mujj booy wax ci moom parfois day mel ni sax xadar nga ciy waxe qu'est-ce qui se passe entre vous est-ce que. li jot a xew li jot a xew ma terminer un peu. s'il vous plaît ma terminer est-ce que li nga xamante ni moom moo jotoon xew seen diggante nga mën noonul wanaa ah, suba boo ci wax ñeen ñi jàpp ni sax ni parfois du ànd ak xorma. non vous savez lu may wax day ànd ak xorma puisque ci xaqiqa lay tege du tege ci aada te yàlla lu mu wax xorma la. Wade moomu nga wax j'ai eu la naïveté à un moment de ma vie de croire que j'étais son fils il m'a donné la preuve formel que c'était pas vrai c'est Quelle est cette Mais, écoutez, vous, êtes peut-être trop jeune. Il m'a jeté en prison. Il a dit à son ministre de l'Intérieur, dina ko rendi ba paaka bi laal perong bi. Est-ce qu'il aurait fait ça à Karim Wade? Au contraire. Karim Wade, qui a été condamné définitivement, première instance, appel et Cour suprême, pour vol de deniers publics. Moi, Wad était obligé de me donner un non-lieu. Mais même pour me donner le non-lieu, ce qu'il ne pouvait pas ne pas faire. Hein. Jusqu'à l'extinction du soleil, il n'avait qu'un seul choix. C'est de me donner un non-lieu. Mais même pour ça, il a fait non-lieu partiel, après non-lieu total de la fumisterie. Ce qu'il a fait contre moi, il ne l'aurait pas fait contre Karim. Donc j'ai réalisé que ce n'était pas mon père. Donc il y a quelque ah. chose entre vous. Bien évidemment. Ah oui. C'est ça. il y a un contentieux très sérieux. D'ailleurs, j'ai reçu euh, des, des, des, amis du PDS euh, hier qui, qui me parlaient de ça. Di ma wax ne ma oui léegi yow ak Macky yéen yéen a war a dox la famille libérale et cetera ma ne leen oui je suis d'accord mais hors Wade hors Karim c'est tout ils sont disqualifiés tous les deux. pour participer à cette opération Alors, de reconstruction président Idrissa Seck vous avez euh, une députée à l'Assemblée nationale vous avez dit Karim Wade sama xel est-ce que suñu dugaloon à l'Assemblée nationale le projet euh, pour amnistie je vote bi contre non doublement je suis contre l'amnistie mais il n'en est pas question on amnistie quoi non écoutez on pas des personnes on amnistie des faits on pas des personnes on des faits les faits en question il est hors de question de les amnistier voilà. ma ne kenn du amnistier nit pour mu leer ci boppu sénégalais bu ñu defee loi d'amnistie loolu mooy dat sàngam ba dat sàngam ku fi mës a sàcc alalu réew mi raw nga demal lekk mu rees ku fi détourné deniers publics raw nga demal lekk mu rees ku fi sàkku xale bu jigéen bu amul vingt ans raw nga nangam loolu ku ciy d'accord yéen sénégalais bu ngeen ci d'accord ma baleen ak seen réew. mais bu ñu évolué ci non defal ndànk ça c'est un point important. absolument l'amnistie il n'en est pas question. en revanche en revanche. Hmm. en revanche comme aux États-Unis aux États-Unis tu peux être condamné pour n'importe quel crime. ça ne t'enlève pas ton droit d'être candidat puisque dañoo considérer ñoom ne ki am sañ-sañu wax kan mooy candidat ak kan moo mérité mu voteel ko peuple bi la citoyen bi mooy wax citoyen bi bu xamee ni Karim Wade sàcc na alalu réew mi Khalifa Sall détourné na caisse de Dakar et cetera doy na bu yeboon na nekk candidat bu bu amee citoyen bu ne d'accord naa man kii sàcc alalu réew mi jiite ma waaw loo ci man affaire ama nañu xool ñaata sénégalais ñooy wax man d'accord naa kii ñu tuumaal euh, yàkkataan xale bu jigéen euh, ak fenal nit ci ba yàq réputation am d'accord naa mu nekk sama président bu ko sénégalais bi d'accordé eh, mais où est ton problème toi ñëpp dañu war a dem la Abdou Diouf ah, waxoon jàkka jàngoo ku mën a nodd noddal ku mën a liqaam liqaamal man loolooy sama position le 21 mai dañuy jox dañuy dialogue mais bu dialogue bi jeexee oui euh,